na na na nga waaw na nga def. chef de village waaw. démb réew maa lay nuyu. démb démb démb ah. waa démb réew mi yëpp a ngi lay ah waay waay waay waay waay ana waa kër gi yëpp. ci am jàmm. naka waa waa ci am jàmm. mbaa yéen a ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi ci bu baax. alhamdulilah yal na alhamdulilah amin ya rabbal alamin ngéwo nga jàmm sax waay ngéwo nga amin ya rabbal alamin ci ñaan yi nekk ba yiisa force bi force mu jàll mu wéy poche bi poche bi poche bi daa fa mel ni ci defoon mu ci jàmm. mu ngi ci commune bu Kaymoor. waaw ci commune bu Kaymoor. ana jumaa ji yéen. ñu ngi ci de waaye ah jërëjëf ci wàll. ah waa na wàllu dikk. wa moom taala. na ca bam taam. naam. Abdoussalam wala bi wala bi bëgg nañ ñu gaaw de. nañ ko ci joo ci 78 317 81 17. ah numéro borom dëkk. ñu koy ñu ngi koy lancé démb réew mi yëpp képp ku ñuy déglu nag ñu dimbale ci. jumaa yi dimb ji nga xam ne. dañ daan julli ji diggante yi sori fi mu ne nag ñi bëgg a defar jumaa joo xam ne. donte ne julli ji noo a gën a sori tiyaabo la waaye dëkk ba fi mu ne jot na mat na sëkk pour mu am jumaa. ci nekk noonu pour def ko du noonu jot na jot na sëkk waaw mate matee na ko te fiñ ko waaw dëgg la ndax ki nga xam ne moo doon suñu maam Birane Cissé hmm. moom diine la doon xeex rek Maba Jaxu Maba Jaxu moo ko jàngal alxuraan hmm. ah ñu doon xeex diine ji da xeex diine ji ba yàlla dogal mu baxoo ñoo la dëkk ndimi Birane hmm. li ñuy waxee nii li ñu ko serndeel mooy. Hmm. ñu dikkee liggéey tata ji. Hmm. jàkka ji mu daan julli mu ngi ko rëdd ca taatu guy liggéey ko boo dikkee tey ma war na ko. ci ndimbu. ci ndimbu bi daan. démb bi réew mi dina déplacé wu ñëw. Hmm. jàkka ji jàkka ji mu daan jullee. jàkka jooju mu nga ca doon taatu guy liggéey ko. waa léegi. foofu la këram ñëwoon léegi. tata moom tata moom mooy lan luñ ko daan defee tata julli. tata daal. Mm. ni ma la ko mën a kii daal ni ma mm. la ko mën a misaale daal. waaw. Ah. mu ngi mel ni yow ma defar sa kër rek miire ko. man moo defar. ma ne mu ngi ni yow ma tabax sa kër rek miire ko miire ko. lii mm-hmm. bi mooy ñoom boobu ci ma amul. li ñu leen mm-hmm. tabaxee nii xam nga amul. boobu si mu ngi xamul. da da da boobu boobu si ma waaye ñoom booba pexe lañ xamoon moo xam ne. Mhm. pexe yoo am solo lañ. Mhm. boobu ay doj dañ doon dem ko xel ji ci kaw doj da di aussi. Mhm. bu ñëwee dañ koy defal maanaam kabagu nga xam ne gii nii dana mat deux mètres yaatuwaay mbaa li da jaxase doj yi ak suuf si ko tabax. ba nga xam ne boo taxawee demee rek kooku. waaw amul benn bal boo xam ne bi la mën nga ko cee dóor mu bënn ko wéy sa wàll amul. déedéet kay. ci lañ daan dugg seen njaboot bi. loolu Birane Birane sama maam suñu maam Birane Cissé moo ko defoon moo ko defee moo ko tabax moom moom moo ko tabax moom. léegi moom moom moom moom fu mujj ndimbu la tëdd wala mu nga tëdd fan. Birane Cissé nag te hmm, du ci li ci mujj a xamit yaakaar naa ne jigi maar la mujjoon a nekk mhm. ba bàyyi ko jigi maar nag xama mhm. boori Louga leen ko yóbbu xama boori fan la dem waaye waaw danañ ci ñëw ci yeneen historien ñi jàll ñun foofee eh, eh, saa si téeme yaa ngi ndimb waaw yaa ana dimb ji ana dimb <laughs> jibi ji ah, ah, di mu naa moom presque mooy boo dafay bëgg a jeex wax wax jàmm mooy lii lii luure man kay loolu laa da gis gars yi euh, màngaankat yi da gor rek waaw ñaanal ba tege ci suñ ah. baabolon bi hmm, hmm. baabolon bi xorom bi ci dikk hmm. ndeke dimbi ñoo xorom dimbi saison ci baabolon bi yóbbee mais daal dimb amatul benn benn rek. maanaam ci seen côté dimb yi sosoon ci dex gi. yooyu moom dee nañ ba. am solo. muy Babalong. waaw Babalong bi daal. mu ngi xamam moom moo am moo am xorom. ma ne. balaa ñuy ñëw ci xorom si nañ wax ci Babalong ji ci boppam mu ngi xamam. Babalong Babalong mu ngi am tuuti tuuti rek. mu ngi am la. mu ngi am tuuti jëli Babalong mu ngi am tuuti. mu ngi am pot ñaata. waaw pot ñaata. pot juróom fukk juróom. fukk. koy foraat da ko jël da ko da loolu kët goxeem bu jaamee ñeenti bu jaamee ñeenti pot am ndawal li. muy mille joo joo cew nga xam ne daanaka jarul bukki. jarul fucc moom kontaan na <laughs> moom daal moom daal boo ci amee boo ci amee ñaari ton ah bu soobee yàlla yéen bi moom moo yàlla bu ko boole kere si na nag ah barke alquran nga rax si mboq tuuti nga nga nga nga jiital ci tuuti mboq maa la ko wax mboq waa daal mboq ma bañ a bëri ah moo gën a neex lu bëri de simba ah. tooy simba tooy sim bi fay tooy wala du tooy bu la neexee mu man na tooy man moom na loor rek. xam nga taxase ko bu du bay bi daam bay daam. bay daam kebbe. bay daam kebbe baabalong ndékki na lu ne. baabalong ndékkee man moo daan tax ma da bëgg a ndékkee ci jigéen ñi xam nga góor ñi boo nekkee baabalong ji mën naa am ci kaw lañ laay tibbal waaye bu dee ci jigéen ñi. waaw ñoom ñoo doon mujjee ndékki ñoo daan ne saatu Babaloo de am na xamoo xam naa ne xamoo suñ toll nii de. ci jamono bii am na état de moom. ñun dabal cere ri ri ri ri ri boo ca tegee Babaloo. Babaloo ba dana yóbbaale cere ja bam jaaxal. ba koy yóbbaale doo ko sax yëg. waaw boo ko ba cere daal yónni ni jën. yónni Babaloo. boole ko dankab cere balaa ngaa ba doon. da nga ñàkk cere ñàkk Babaloo. maanaam gis nga toog loo mos a togg mu xëm sa borom mën na laay cooyo mën na cee mer waaye baabalong yoo xam duñ ci duñ cee xàkk kenn moom moom bu xamee sax fay gën a neex yàqut ko de yàqut ko yàqut ah. barke alxuraan ah. nga da nga da leem rek ñu yàq nag baabalong bu la ci yeex jamee rek bu la yeex bu la ci yeex jamee rek togg des na bonke bonke ko toggo fi mu ne xorom si mu ngi xamam yëpp ak beeke xorom si day xorom bi xorom bi am na hmm. beeke it am na beeke bi nag bële hmm. bi ci suñ am solo noonu mais li nga wax mhm. ko xam nga. waaw ah. wari kantoora boobu fi la daaj di jaar. Mhm. romb dëkk bi boobu. ci ci diggante boobu ak Njaxeen. Rishi Juba Njaxeen. foofu yëpp sama xarit yaa nga fa. Mhm. ñëw ngoo. ñëw Daabali. bu ñëwee Daabali. romb Daabali romb Kaba. dikk kay romb Kaymoor. romb bu jëm daaw Bambal. da continuer de wéy. continuer nag. wala uh-huh. presque nag presque nag. Uh-huh. daa fi moom daa fi daaw daanaka sama yeboon ne. Uh-huh. boo rombee ndaaw dëkk bi ñëwaat cekkeen. daanaka fa la dex gi jeexee. ah dafa def nag. aw kur la ko soppi nii rek waaye amatul fa solo. amatul fa solo. déedéet. waaw d' accord yem ah kon kon daal xorom si yéen buubu leen yéen ci ndimb foofu fi na xorom xamut. non xorom xam nga korom balaa ñuy buub xorom ndox mi dana dem ba wàcc. Mhm. ba wàcc ba mu def ay ay ay nga xam ne ndox mi wiis na ba def ay déedéet. léegi ñu mën a amee xorom mais suñ leen a bëri ba léegi. ana gune yi ñi ngee dikkam wala wala ñi ne ci àll bi ñi ngee nekk ñi ngee faraatu ba tabaski gi gën a jege. ndax ñi ngi waajal bis bu am solo foofu ci ndimbu muy journée culturelle boo xam ne xat mu ne ñoom ñu ngi koy xamal ci ndimbu muy bis bu am solo ñetteelu fanu ñetteelu fanu la de wala ñeenteel uh-huh. ñetteel bi ci ndimbu waaw ren ñu ngi koy waajal xam nga gune yi fi ne fañ soppi doxalin bu njëkkoon pom yi musique mi lañ daan topp waaye fi mu ne dañuy indi aada ak cosaan waxtaan ci la woon démb ci dëkk bi. gën a del gën a delloo ci gune yi bu boobaa mag ñi taxawu leen taxawu leen xam nga loolu lu am solo la euh, bay daal mooy indi xam-xam mooy mooy li nga xam sax su nga su yow fi nga fi nga bokk fan la ak fan fan nga dëkk li nga xam lan la uh-huh. waaw mooy sabab li nga xam nga xam li li ma xam ni lii la uh-huh. ah keroog de neewoon nga ma ndëbin manta doon nu jabar yi jabar ku ko <laughs> doon ne itam day mujj du ci am résultat moo tax daal ku ne dugg na dugg ci loo man ah moom day noonu la rek comme ku ci biir ndox mi la rek nga xam ne ndobin ah, te ndobin moom manul ndox bañ toogee ba jëmmi jamono hmm. léegi léegi ku mooy balaa ñuy ku la mooy am picc la picc la muy ne ci ndox mi waaw waaw léegi continuer léegi ndobin dafa doon na jabar ba nga xamee ne bi hmm. di yuuxu doon na kulaan jàng de jabar di kulaan jàng de kulaan jàng jabar di yuuxu ba hmm. ndobin ne ko lu yuuxu mu ne ko man hmm. heure bii la ma sama jëkkër daan yëpp jën yi may ànd jën waa nga ne la ca ko xaa naaw rek Uh-huh. ne sa digg géej gi tumbu ko. la ilaha illallah. mu nga naan pitit pitit pitit pitit ba bëgg a suux. la ilaha illallah. jabar ji daal di naaw rek daal di jéew rek. Hmm. fekk ndox mi su ma piti piti bi rek mu dee ko rek boole ko jël wa daane ko ci jëri ji ne ko góor bëri bokk. mu ne ko góor. mu ne ko góor bëri bokkuñ. billaay góor bëri nañ ta bokkuñ. loolu la ko fekk muy dëgg nag. fekk. ne ko góor bëri bokkul. waaye boobu la demee xam ne. ah moom ku laa dem du moromam. bokk mm, ah. bokkuñu lu ñuy def kii dafa ne ci ndox mi kii dafa man ndox kii man jéeri ji. moo ko man fépp fu mu mën dem moo ko man. <clears throat> mais. Euh, ah Mbadou moo ko man. fu mu mën a dem rek. Fulanja mm. nga mën loolu. góor gi picc yooyu ñi ngi am ba léegi ay kulanjang kulanjang ndewin jumaa ji mënu jumaa ji mënuñ ci ñàkk ay yëngatu daf leen ci yitte parce que kat mm. ah waaw bu naxsaayee day non yàlla tere bu soobee yàlla réew mi yëpp réew mi yëpp a koy dégg te danañ ci jàpp muy jumaa ji nga xam ne ndimb tabax wala ndimb yëpp sax la ñuy wax bokk nañ tabaxal taxawal benn jumaa soxla nañ ci ku ne sa loxo pour ngeen am lu leen leer borom dëkk ndimb taba bàyyi daam kebbe mu ngi nii ci ligne bi may wax ak moom ku ko ci woo ci soixante dix huit trois cent quatre vingt un dix sept dina la ci waxal naam juum nga foofu nag borom dëkku ndimb taba man duma borom dëkku ndimb biraan waaw mais waaw waaw waaw Jim Kebe mooy borom dëkk ba Ndimbu Taba. Jim Kebe ñu ngi koy nuyu. xam nga Ndimbu Taba. Oh. ba Birame Cissé di dikk di Birame Ndimbu Taba la jaar. d'accord. góor gu ñuy wax xaama Kaba Dia. demal nga wóori. nga ne ba nga allo. borom dëkku Ndim borom mooy kan. borom dëkku Ndimbu Taba. borom dëkku Ndimbu Taba. Ndimbu Taba moom moom ba Kër Ndànk. foofu kii daloon. foofu la maam Birane Talla foofu la Birane jaari foofu la Birane jaari hoo góor gi ne wax xama mbus kure yaa sen xama kaba jale yaa nde donc mm-hmm. xëyee mm-hmm. mu ne ko Birane demal nga wëri mm-hmm. Birane dem di wëri nag dikk dikk dikk ba ci digg Birane foofu ñu gis ci genn guy go mag mu daal dafa toog si tuuti benn pël fekk ko fa ba nga ko fa fekkee bilaal na ko yow Kounda yaay na ko man de sutura laa tudd. sutura. waaw sutura mu ne ko noo mu ne ko ba mu paree doo ba ngoon mu ñibbi ba ko góor mu ñibbi ba ñibbee góor gën a ko waa ah, loo gis mu ne ko ah gisuma dara de. Mm. maa nag taatu bi gën a toogoon na xam na pël bu ma ko mu ne ko pël ba mu tudd mu ne ko wax ne la tudd mu ne ko nu mu sant mu ko baax. Hmm. mu ne ko demal place baa ngi noonu. Hmm. soo fa dëkkee ku la fa fekk dana la fa bàyyi te danga fa am sutura. allah. ndimbu waaw léegi ndimbu yooyu. boobu nga sàkk sant hmm, ndimbu googee tey. waaw moomee du moo doon xeexle Maba Jaxu Ba. waaw Birane moom. capitaine ma ba joxu ba la woon. ndeysaan. jàmbaar la mhm. amoon na teg bi. Mhm. te daanu arrière. ñaan mhm. kon woo leen yaakaar naa ne. waaw góor gi daam kebbe am am ca ndam waaw waaw. léegi góor gi daam kebbe mun ngeen ko woo. mooy borom dëkk ndimbu Birane. ñu taxawal nak juma jo xamne pour ndimbu yépp la wala pour julit yi yépp sax lañuy wax ci ndimbu soxla ci nak bu baax ku ci japp ku len ci jappalé direct Kay sima mu nga len di yone sima peinture lu lu lu tabax di soxla dal fer lu tabax di soxla dal bu len nexé sax jandal nga yone len man ngeen di wo bay bi dan ci 60 dam 78 317 huit 17 du non la voilà sama numéro baa ngi. 317 81 17 78. voilà tigi. voilà. baax la ñuy xëddoo jàmm. baax na tey tey tey tey lu ngeen dawaloo. tey fa ngeen soppeem ñi leen ngeen def. tey tey ah. ana guñ de waaye ndekki nañ nag. ah lu lu lu ñu togg wala fi ne gune yi joxe. <laughs> laajee duñ bàyyi la ñuy yi lañ war ah. ah, ni yaay lu may togg tey jigéen yàgg na koy wax de gune tamit bàyyi fu may xëy tey gune yàgg na koy wax. <laughs> yal na yàlla dolli jàmm ah mu ñëw na nga bàyyi yaa mu ne ku nekk ñëw na nga bàyyi yaa mu ne nga jox ko nga ne ko dem wéyal na ko maa ngi dikk. waaw laay dëgg la nga de nga koto mu ci dàtt ji fekk ñaay dërëm newu ci sa poos bi. waaw